an karaj mooy maqaama bi lamboo kafaatu sitaar juróom ñaari yëf yi dalee ci kaaf te mu ne bu fadlu si taa teroo mu xam ko dee du génn mooy hmm. kinnun wa kiisun hmm. wa kanuunun wa kasu tilan hmm. bandal kabaabi wa kusun naimun wa kisa mu ne dee juróom benn mbir la yoo xam ne su dee fadlu si taa dikk na daal moom moom dootu génnati dootu jàmbat dara kinnu mooy néeg boo xam ne seen nu yolut kiis mooy porte monnaie boo xam ne dafa fees dell ak xaalis kaasu tilat mooy kaasab sàngara baadal kabaab mooy yàpp wu ñu lakk mooy jongama naaximun wa kisaa ak mbàjji gu tal mu juróom-ñaari yëf yi su ko amee jamono yi sedd di banko rek kenn ko tax a génn de kadwawa dana ko ne kabaatu sadwa wa demee ci safa di mu ne bi ñuy jàng baa si bi dem ñu laaj ndax am na ku ci am lii ci waxi arab feneen mm-hmm. am ñu ko fa indil benn wëy andi na mm-hmm. waaye dama ko mokkalatu mm-hmm. gis nga ku baax a baax ne ma dem dem ba kanam man ma am lu ma jaal xarifu wa indi min hawa ijihi saman bihinna qiyaamu same wal basari mussun wa mawsun miim la wa mahbubun wa maidatun wa mud'amun wa mudamun tayyibun wa mari seloon bu baax a baax mu ne xam nga ibnu sukarata indi na kusun naahimun muy baat bu dalee ci nun da koo dimbandikoo rek mm-hmm. waaye lu soxla ci kaaf lañ soxla mm-hmm. lu lu ci kaaf la ñu soxla mm-hmm. aussi kii indi na tayibun muy lu dalee ci taa mu dimbandikoo ko mais lu ci miim la lañ soxla mu ne man dama laa wax ne ila mata ana la an fakku fii baladin rahini jiimaati jawrin kulluha atabu dëkk boo xam ne ay jiim la dajale te yépp nag di halkande xamul lu ma fay Mm-hmm. ila mata ana la anfakku fi baladin mm-hmm. rahini jimaati jawrin kulluha atabu mm-hmm. al joo mooy bu njëkk bi wal jay wal jariyu mooy daw yoo xamul foo jëm ten waaba wal jiraanu dëkkandoor yu xees wal judur yi mooy xopp si njàmbal wal jahalu ak réer wal jubunu selu ak ragal mm-hmm. a jirsaan jarax yu mën a yàq mm-hmm. wal jarab ak ram muy lépp jim man amul benn baat boo xam ne dugal naa ko mm-hmm. te ci jim ah dale dégg nga la al fakku fi baladin rahini jimaati jawrin kulluha atabu al joo wal jariyu wal jiraan wal juduri xam nga danay baax waaw ah wal jahlu wal jubnu wal Mm-hmm. mu ne wala boog ma wax la boog ne la boog mm-hmm. ne la boog ne la boog la in tayassara lii mm-hmm. bi misra wajtamaat samoon fa inni fi la daati sultaanu misra gi le su ma fi amoon juróom-ñaari yëpp e eh kon de buur la fee do la in tayassara lii fi misra wajtamaat samoon fa inni fi la daati sultaanu dinañ ko baax a baax xawdun mooy jongama wa xamrun ak sàngara mm-hmm. wa xaatuunun mm-hmm. mooy jigéen ju tedd tedd mm-hmm. ala moo xawdu mu di sutti maana wa xaadimuha ak jàmbi koy liggéeyal wa xilaatun ak ko day lu rafet wa xulaatun ak mbóorante mu mën a bégloo nit ak i xarit mu ne sàllaa juróom-ñaari xaa daal su dee man am naa ko misra kon na ma neex waaw la in tayassara lii fii misra wajtamaat samoon fa inni fi laddaati sultaanu xawdun wa xamrun wa xaatoonun wa xaadimuha wa qilaatun wa qilaatun wa qillaanu Mm-hmm. waxul laa la. Mm-hmm. yooyu la yooyu lay jàngale usla boobu gaañ yi daan nañ ci kii. Mm-hmm. am na ay nawa na ay way yu bëri am na ay nawaadir yu bëri yu ci gaañ yi génne. ah bu ko moom nag bi mu tànn. mooy bi bu su karata bi. mooy way mu ñaari way yi mu waxoon ne. wayu ko tam nekk ci maqaama. ci la nekk. mu su karata borom diwaan bu rëy la diwaan mën na jëm fukki way. xëy mm-hmm. na dundal bi yow wéy la ci doon def na du teral li wéy si yow man la yow ki dindi waaw mm-hmm. waaw dundal bi wéy la ci doon def mm-hmm. allahu ba wéy jiwaat na man la yow ki dindi li wéy man la yow moo tax nag almaqaamatu lii mooy maqaama alxaamisatu badaaji juróomeel wal hesroon alkarajiyati bay ko ju karaj mm. mu ne xakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam mm. qaal mu ne satawtu jeexale woon naa faslu sita mm. bil karaji ci karaj faslu sita dafa mas a fekk dëkk buñ naan karaj li day din ngir bor aqtadihi boobu danaa ko fayeeku wa arabin ak haajo aqtadihi joj danaa ko faj am na ku may jëflanteel mu am lum ma war a mm-hmm. ma doon ko toppatoo mm-hmm. ak yeneen mbir yoo xam ne suma hittee bopp mm-hmm. ma de ko fa dox loolu moo taxoon farlu sita fekk ma fa fa balawtu ma nattu min sita ihaa ci seddam bi alkaalihi bu daaji tab Mm-hmm. wa sirriha ak tatak seddam mm-hmm. an mooy bu ñettal yaram mm-hmm. nafu ni muy def yaram mu ngi mel ni lafu ni muy def nafu ci sedd mu ngi mel ni lafu ci tàngoor xam nga tàngoor xam moo def yaram lor googu mooy lafu seddit xam lu moo def ci yaram mu lor googu mooy nafu naful bardi laful hajiir lakkag njollo seen waa bardi laful hajiir fa balawtu manattu min sitaayiha ci seddam alkaalihi budaaji tat wasit ma ci sitaam alkaalihi budaaji tat budaaji siiñ mooy budaaji tat wasirriha ak seddam annaafi budaaji lor yaram manattoo ci maa loo xam ne arrafani xamal na ma jeexdal balaa dëgg dëggu coono mu ne sallaw sedd bi tax na ma yëg dëgg dëggu coono waaka fa mu woo biyee ci man xaalitilaayi ci jaaru mm-hmm. ba tax daanaka mënuma sori taal mm-hmm. heure bu nekk maa ngi jaaru mm-hmm. falam akun nekkuma usaayulu de tàggaloot wi jaar yi sama ndaare mooy sama kër wala mustawqada naar yi du càggeen daal taalukaay sama safara illa li daruratin dara ngeen lor ut faaw bu def na ma jëng ilayha jëm ci moom aw iqaamati jamaatin mm-hmm. wala taxawal julli mbooloo mm-hmm. boo xam ne xaafi bi danaa wattumaale ak ma mm-hmm. néeg bi daal dumu ko di génn bu ne maa ngi jaaru xanaa soxla boo nit mën da toogaale rek ma génn ndég loolu wala waxtu wi jot na ma war a dem jàkka ji ndég julli mbooloo sama néeg daal dama ci sax rek ndég fatak sedd e iqamati jamaati walla taxawal ma fi yawmin ci bis boo xam ne jëwuhoo jëwum musmahirun aji sedd la samharir mooy sedd mm-hmm. wadajnuhoo lëndëmam mm. mukfahirun aji lënkaloo la mu xam bis kenn mënu laa wax mu ci gën a mm-hmm. la soxla gaar mënu ma ñàkk a génn ma loru mm-hmm. ilaan barastu ba ma génn min mm-hmm. ki naa ni li mu himmin ngir aji hitteel xanaa ni jëy gaar na ko soxla gaar bu xam ne laaj na jóg temps boo suma néeg fa ida ci mbette seyxoon am ak góor xaaris jildati guddaaj raflewu ci der foofu le ma gis fa góor goo xam ne yaramu neen la def de baadil jurdati guddaaj yi feeñ ci puteekaay góor gi yaramu neen la def de waxadeen xam ma kaala hoonamu bi raytatin ci ak rayta mooy malaan su hoyo wastasfara mooy mu luqoo istisfar mooy luq jël malaan gi doxale ko ci diggante tànkam yi noonu mm-hmm. am xam ne lëpp ko rek mm-hmm. bi fu waytatin caas morso caas malaan mm-hmm. waxawaale yi te nekk na ci kiw ngaam jamoon mbooloo kasiiful hawaasi mu daa ji tal ji wàlla mbooloo mu beneen ko wër woo woote moom yu sidu mu ngee sadda mu ngee sadda ay wéyam wala yu haasi te faale wut kenn nag ngi woy yoonam yaa qawmi la yanbu'u illa faqri asdaqu min ori awana alqurri faatabiru batina haali wa xafiya amri ba mu yaa qawmi ayéen samay la yunbi'ukum du leen xamal an faqri ci sama ñàkk asdaqu koo gën a dëggal kàddu min war mm-hmm. yi ci sama raf léegi awaanal xurbi ci jamonoy tat ak fedd mm-hmm. fedd boo métti bile mm-hmm. koo ci gis mu def yaramu neen da nga xam a def koo xam ne yaramu rek la mën a def nag loolu na tegtal ci loolu forte biroo na ngeen xalamee bi maa ci li nga xam ne bada feeñ na mu min durri ci sama lor baati na xaali aji na buy sama mbir waxaf yi am daa ji nag buñ ko mujjee yaramu neen bi ngeen mm-hmm. bi ci sedd bi de mm-hmm. war ngeen a xalaat borom lu koy wéyee mm-hmm. te waxu bu te waxu bu kenn na ngeen wattandeku inqilaaba silmi dahri jàllar ba ku jubóog jamono te yéen nag àddina bañ leen a nax ndeg yomb ngeen gis ci seen i mbir ndax jamono kat day jag saxut jaga di saxut waxaadiro na ngeen wattaleku inqilaaba silmi daari ba ko jubóog jamono fa inna nii man mii nga kuntu nekkoon naa mos naa a nekk na bi al qadri daa ji yëkkateeku ci dara bi xam képp koo xam ne soxlaa naa soxla naa man xamanteeg moom mm-hmm. daa xamanteeg moom mm-hmm. te lu baax a baax mm-hmm. moom kay ku la jox ngay bëgg mu jafe waaye koo jox moom boo ko bëggee ah du jafe te booba xamoon na daan na joxe waaw xam ne jamono gi képp koo xam ne man soxlaa naa xamanteeg moom rek daa xamanteeg moom ndax li ma la wax moo ci nekk waaw ku la jox ngay bëgg mu jafe waaye koo jox moom soo ko du jafe aawi daan naa sàpp ilaa wafrin jëm ci xalal ju bëri xalal ju bëri laa xamoon waxaddin ak ñaw yafri goog dana mu dagg lu bëri ma man ko ci soxla yi lu bëri itam ma man ko saafaraal nit tu du dana jëriñe sufri sama xaalis wala suma wurus sama koom ma de ko joxe wattu bii du tedde halage sumri samay samay gunto samay noon ma di leen duma wattu bi dana halage sumri samay gunto watastaki dana tawat koomi samay madd mooy suma gëlëm yu mag nga daa ta àqar samay gana suma amee gan suma gëlëm yi de rey rek suma amee gan suma gëlëm de jàmbat ak koomu mooy gëlëm ku mag watat sa kii da tawat koo mi samay mat da mooy samay gërëm yu mag xada suba samay ganale xamoon naa lool te itam daan naa ci def loo am lool daan naa ci fan baax bocci ak dahru jamono suyu fal xadri jaasi xot jamono dikk ak mbiram joxe gannaaw commencé di jël limaam wasan na mu tasaare moom jamono. Mhm. xaaraati rasaaya ay lokki musiba. Mhm. alxubri yi dafay pënd. Mhm. mu xiir ay musiba ci samay kaw. ñii dal. di yàq li walam yasal dañul moom jamono. yasatu nii dama gotti. wa yabri yi te dama xett. xataa xafat barab. daar kër. waxaada te ngiis. dar yi sama sama sama sama jamono dama jëlal li ma am hmm. dama jëlal li hmm. ba mujj suma kër rab hmm. ba mujj li ma amoon yëpp hatta hafat barab ko daar yi sama kër kenn nekkatu fi waxaa ngis darri sama sama bëri sama alal amatuma dara wala darri sama sama bëri wa baara lambu fiar yi sama jàmm mooy sama pré fil wala ci bindee bi wa fiar ak sama way kenn faaleetuma waaw ndax moom boo bëggee ko la jox rek mu daaji daaji sogo ngir ñàkk faaqa mooy ñàkk gu tatatat waon sërin ak ñàkk ñàkk daal dama tungu nga lool sonal ma lool hmm. wasirtu mu mujj hmm. nit wa faqatin daaji sogo ngir ñàkk waon ak ñàkk hmm. xaaril mata daaj raflewu ci gannaaw mujaradan de ku ñu rafleel min xisi ci sama xollit yaramu neen laa def xama benn yére ka am na nii daanaka man daal almexzalu almexzalu bantab kiccu laa fi taarri ci raflewu laa dif ah de luy fekk tàngoor yére buy fekk tàngoor lii dama ñaal fi sinnu wa sin nabri mm-hmm. sin nabri mm-hmm. ñu ngi ci fan yi nga xam ne mm-hmm. ci la sedd di gën a tatee juróom-ñaari fan la jamonoy sitaa la xaw ma dara lu may fegee tàngoor xayru tadahi xanaa rek kee ñaagu ci naaj bi rek ah wasilaye jamri ak jaaru ci xal rek faal xidam mun ndax na fi mu xayaan mooy ku mel ni géej ci tabe sóori daa in kay borom làmbaay mooy kay borom may mm-hmm. xam rin ku daa ji bëri mm-hmm. joxe day suturaal darab kii joxe mm-hmm. ni malaan de suturaale jëm jëm tege loolu moo tax joxe ñii ko rida ndax am na fi ku tabe ku mel ni géej mm-hmm. ku xam ne yasturu nii dana ma suturaale mm-hmm. bi mutrafin ci malaanu cëw nga mm-hmm. koo xam ne daf maa jox malaan mu baax a baax gannaaw xam na ko mën na koo joxe te la bu ko joxe itam xéemun ma de aw timrin wala boog mu jox ma sagar gannaaw moom la mën a am xeebu ko de wala mu jox ma sagar gannaaw la mën a am ndax lii ku ko def ci la bu wa la Hmm. ngir sàkku nag jëm yi yàlla rek te sax hmm. daal di suuf waaye du ngir santam hmm. baax na boobu de waaw suñu incha allah ñu waajal wax summa qaala topp mu ne yaa arbaaba saraa yéen boromi kon arraafiliina ñi de way daagu haare fil firaa yi ci marade ciw nga yi yéen ñi moomal tey hmm. ba sol ay malaan yu rafet yu jot hmm. man ko ku joxeef na ko hmm. xeeran xiiw fal yun fiq na ci dundule ku ci yàlla sédd dara na fexe lëggéeyal ko ci wa man istataa ku man na mu an yur fiq ba mu jëriñeer fal yur fiq na jëriñi ku mën a ci loo xam ne soxla bu fare la na ko ci dimbale man uutiye ku joxeef na ko xeeral hiw mm-hmm. fal yunfiq na mu dundale mm-hmm. wa man istataa ku man na mu mm-hmm. an yunfiqa ba mu jëriñaa fal yunfiq na mu jëriñe fa inna dunya haddina xaroorun naxaa koon la wala xadoorun xadoorun wataa koon la ndax it nag àddina jàmbukat la wa dahra jamono adoorun fakkata laa koon wal mug na du te man-man Mm-hmm. zawratu tayfin kem nemmeeku jeeneer la mm-hmm. te man man luy gaar ab diit la mm-hmm. taxul wal fursatu koom mu am occasion pour def dara musnatu sayfin niiru cooroon la wa inni te man mii di wax ak yéen wallahi giñ ci yàlla la taalama talaqaytu yàgg na bu ma tàccoo a fitaa fatlu fitaa bi kafaati yi ci ay fardu sitta yàgg nay dikk mhm. ma waajal ko mhm. yi ñuy wax kafaatu sadwa mhm. yëpp daje ci man waadatu tema xadul aluhaa ba ay waajaay la wañaa fitaa xam la mu waafaati yi ñu njëkk dikkam xam ne balaas bi danaa ko waajal waxaa yi leen ne ana man nag al yow ma tey tey nag man yaa saadati yéen samay sang tey nag man mii. Hmm. yéen ñii samay sang. Hmm. saa yi di sama xasa bu dey. Hmm. wisaadati mooy sama ngaganaay. wajildati sama der bi. burdati mooy sama mbubu. waxamdati. sama loxo mooy si ma tuwat loxo. jamnati mooy sama bagaan. tey man xaamu fu ma tëdd. xaamu lu ma gaganoo. xaamu lu ma sol. xaamu ndam lu ma def li Mhm. saahidi misaadati wa jildati burdati wa habnati jamnati mhm. mu ne saahidi sama xasabu misaadati mhm. mooy sama ngaganaay wa jildati sama der burdati mooy sama mbubb wa habnati sama tibab loxo jamnati mooy sama bagal falyante bir na xalamee alxaaqilu aji xelu ci sama mbir kon kenn ku nekk. Mm-hmm. na jàngee ci man. Mm-hmm. wala yu baax dina jëkkalanteer. farqa mm-hmm. layaali soppata guddi yi. kem lam man. mu def ca lu baax. balaa jamono yi walbatiku. fa inna saada naka aji texe. man mooy ku xam ne saada waa doona mu. bisiwaawu ci kurul moom. gis loo dal nit mhm. nga def ko muy bind mhm. fexe góorgóorlu haale mhm. ndàmbal perta loolu mooy sens da ngaa jëriñu ca nattub kookale te doo jot ca coono ba wa temps da te mu li ma raaw ñaara ñaar lii la wax fa kii la waxees la wooy ñaar ku ñu ne ko xat jalaw te feeñal nga xaalee naa ci ñun adabaka sa xam-xam li fi wax ci wëy mm-hmm. ak tax mm-hmm. na ñun xam nañu ne mm-hmm. yow adib dëgg nga faj lu feeñalal danaa ñaan ñu nasabaka sa askan dañu bëggoon na nga wax ma nga wax ñu ana yow ci ñoo bokk ñuy say maam fa xaal mu ne tabban xalaku li mu taxiri ñaal na kuy damoo bi azmin ci yax na yu roy man kay su may dem sàllaw li ma rek seetlu bu baax a hmm. baax. seetlu bu baax a baax. Hmm. waaye diw sangam nangam diw sangam mooy sama maam diw sangam mooy sama baay nit ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. loolu hmm. jaru ko. annaasu. min jihati tamsil. akfaau. abuhumu aadamun. wal ummu hawwaa. ah nit ñëpp bokk ndey bokk baay. seetlu annaasu min jihati tamsil. akfaau. abuhumu aadamun wal ummu hawwaa. seetlu bu baax loolu la wax mm-hmm. mu ne mm-hmm. innamal faxru ndam mm-hmm. bittuqaa nekk na ci ragal yàlla wal adabi ala al muntaqa bari bu ñu tànn ndam nekkul ci diwa ma jur ndam mu ngi nekk ci mel ni nga war a mel loolu la wax tabban halaku li mu tafirin ñaal na kuy damoo bi azmin ci yax na firin roy kuno innamal faaru ndam bi tuqaa nekk na ci ragal yàlla. Mm-hmm. wal adabi ak adab al muntaqa ba de bu ñu tànn. Mm-hmm. su ma sada topp mu sadda ne. Mm-hmm. la amruka mal insaanu. illa bunu yawmihi. ala ma tajalla yawmuhu labnu amsihi. wa mal faaru bil azmi ramimi wa innama. faxaaru alladi yabqi al faxaara bi nafsihi. mu ne la amruka sa dund mooy sama ngi. mal insaanu diin nit. ilam ni yow mi yi dara du doomi tayam rek mm-hmm. alamaa ci li nga xam ne tajalla feeñ na yow mu woo tayam mm-hmm. lam nu am si waaye du doomi du doomi démbam mm-hmm. nit boo ko jox xiima da nga lam la wan rek selum baawa nit lam la wan nam toll ci nawu moom noonu la toll ci nawu rek qiimatul ah. insaani ma yoxsinuhu nit lam la wan na loola toll ci naw rek. Mm. moom noonu la toll ci naw rek. xiimatul mm. insaani. Mm. ma yoxsinuhu. laa am lu sa dund mooy sama ngi. man insaanu déet ndam. déet doomu ilam ne yow mi ngi dara di doomi li nga wane tey. loolu lañ la war a nawee rek. xalaamaa ci li nga xam ne tajalla feeñ ne yow woo tayet. lam nu am fii. waaye du doomi démbam. xiimatul insaani. ma yoxsinuhu. wamal wamal faxru den ndam bin hmm. azmi da nekk ci yàq hmm. arrami mi roye puno hmm. wa innama faxaru ladi naka ndamal koo xam ne yam xii dana mu sàkku alfaxaara ndam bi naf si na ci boppam ndam nekkul ci ay ñu deewoon bu yàgg ba nga xam ne suuf lekk na leen ndam mu ngi nekk ci def luñ lay nawee li la wax suma inna hoo topp moom nag jalasa jékki na nag bu waxee mu jékki nag mu xaw xefan daa ji lunk ci gannaaw ak gannaaw goo xog wajran sama mu goor mu xaw xefan daa ji lox maa gu suuf di lox su ma waqaal mu ne allahumma yaa man xamara bi nawaalihi wa amara bi suwaalihi salli ala muhammadin wa alihi وأعني على البر وأهواله وأهدي لي غرا يؤثر من خصاصة ويواسي ولو بقصاصة اللهم yow buur yaa man yow mi nga xam ne xamara muuree na mu bi nawaali yi ci mayam ñaan dañ koy dalee tagg yàlla wa amara te mu digle bi su aali yi laajam nga xam ne lu yàlla santaane la nga jublu ci topp ndigalal Mm-hmm. salli yal na nga def salaatu ala muhammadin wa alihi nga xam ne yonente bi mooy bunta bi yàlla nga def salaatu ala nabi tegg yi ni ñaan ji nga ni koy mën a jàngee waaxen ni nga doro sa soxla waaxen ni te nga dimbale ma alal bardi ci sedd bi war wali ak i tiidam waa tex te yàlla na nga dogalal li ñaan ma kon ran kor yoo sir wu dana mu xëppal yow si lu a mu xabal min xasaasatin ci ñàkk. bu yowaas yi dana mu dimbale. wala lu xasaasatin donte ci jéem pit la. jéem pit ci soo la. te itam nga demal góor bu xam ne. mën naa ñàkk sax. ay bu def lu baax tax mu la mu te itam lu mën a defee lu baax. du ca xeeb dara. gis bu baax a baax. baax na foofu rek. xam mooy maamam hmm. waaye mel na que ni yooyu xaaris ne na faramma jalla ba mu feeñalee hmm. ani nafsi ci bakkan hmm. al xisaamiyati bay ko ju xisaam asalaamaaleykum waa bind naa ko mu ngi ñëw sax dégg mm-hmm. nga falamma jalla ba mu feeñalee xam ni nafsi ci bakkan mm-hmm. alxisaab mi yëtti bay ko jug xisaab mm-hmm. al nafsul xisaab mi yë buñ ko waxee ci nit mooy koo xam ne nekkul di demoo ay mbiru kenn góorgóorlu boppam rek nafsul xisaab sawadat xisaaba bakkanu xisaab moo sangal xisaab waxal madhul malika karra wal iqdama ca hmm. la xamee xare hmm. ko baax wa sayratu malikan humama ca hmm. la góorgóorloo ba falu hatta hatta hala wa jawasal aqwama foofu la cosaanoo dégg nga wal mu agay wax yu al asmahiyyati yay ko jug asmahiy al asmahiyu mu ngi tudd Abdul Malik ibnu Quraybin mm-hmm. mu ngi bokk ci udabaawul hasril abbasi mm-hmm. mu mag Mansuur mm-hmm. ñoo xawoon jamono hante ku xam-xam ayaamul arabi ku xam-xam wayi arab ku bëri ay naadira yuñ jëlee ci moom la bëri luñ la wax ci moom arab yi daanaka ci moom lañ ko jëlee mu ngi bokkoon ci hmm. jaalat xarab na malaami hu ayni gende koy sama bët hmm. temps ju mu woo de ko natt hmm. wa malaami lax bi mu waxee nii nag dama commencé xool bu baax xoolat boobu ba ma birlu ne mm-hmm. am na woon ne abu seydin ba ma xam ne kii abu seydin la mm-hmm. waan na temps rio ak naka rafleem o mm-hmm. boole seydin fii tak rëbb la xam naa ne yaramu neen yu falan rek pour jëlee ji nit ñi daal wala ma xamu gende ko abu seydin ne am na xer faani naka sama xam huwa mu xalaat rek ko jot na ko maanaam wala maa huwa. an hmm. hmm. hmm. na herfaa ne xalaat rek too. loolu laa la def. waaw kii dafa huwa bi. wala maa xam mu génne huwa moom. ne an na herfaa ne sama xam. xalaat rek too jot na. wala mu yow man ay yati ko mu xotti. su ko mu xam man xàmmi naa ko. te xam naa ci moom lu bëri. te bëggul ma ko. fa xaaral mu ne. uqsimu maa ngi giñ te la waaba fa qaala mu ne uqsimu maa ngi giñ bi samari ci baram bi diw yi ci jant bi wala ci ngonaar wala keru weer wi la te la waaba uqsimu maa ngi giñ te la waaba bi samari ci weer wi mooy lënd ker ak weer wi mm-hmm. mooy leer ak weer wi mm-hmm. wal xamari ak weer wi mm-hmm. wa ak biddiw yu de way rafet wa sahari ak tóotóor yi maa ngi giñ ci yi ne innahoo naka luy mbir la yastura nii du ma suturaal illaa man dara koo xam ne taaba tey ne xëy ma woo jikkoom xëy wuusee ba te nandalee. Mm-hmm. adimu hoo daram. Mm-hmm. maal muru ati. Mm-hmm. ndoxam bañ rus. mu wax ne may leen giñeen ci yàlla. am jom. tey moo fi mu suraale. ñëpp foog ne ndax ku ko jox sol la. fekk na góob ku ku bañ a wuññi tapale bi. moo tax du ñu xarit ne ma xam. maa li nga xam ne xanaa wujj na ko. lim naan lay illaa man taaba xiimoo hmm. xam naa ne man lay bindu rek hmm. way lam yag ri doonte xamul hmm. alxawmu nit ñi maanaawu maanaam doonte lu bëri ci nit ñi liñ bokk mooy ku ko tàggale yaramu neen wi moo ko tax def wasaani naqadima maa li nga xam ne yohaani dana jànkuwanteeg moom mene rien dati ci lox wa tefta wa waqti xaarel jildati ak koto mu der wowak deram mm-hmm. wasaani naqadima maa li nga xam ne yohaani dana mu jànkuwante mm-hmm. mm-hmm. ak moom min riadati ci lox wax ko si alaalal jildati ak koto mum der karkar jim nekkee ak jëmmum ji ni ko sedd bi jàppee nit ak këmmi loolu tiir ma lool fahamatu ma jublu li farwatin ci malaan ak cëw ga goo xam ne hiya moom bin nahaari ci bëccëg mm-hmm. riyaas yi mooy sama yëre yu foor mm-hmm. wa fi leyli ci guddi mm-hmm. firaas yi mooy sama lal fa na daw sohaa ma ñoori ko han ni jëlee ci man wa qultu ma wax la woon ñaal ko ne ko iqbal haa min ngu ko min ni jëlee ci man mu ne boobale mel na malaan laa am moo xam ne bii bëccëg mooy sama génnukaay ko duul rek. Mm. du ma du ma génne ci nit ñi. muy guddi gi. Mm-hmm. moom laa di sàngoo. maanaam moom la laa dindee ci sama jëmm ji. Mm-hmm. jox ko. Mm-hmm. léegi xamoo du lu mel ni mbuur. jox ko ni. xanaa nga dellu ba ñu fekk rek. waaw yow moom lu mel ni mbuur. jox ko ni. nga seetlu ko jëfee. topp ko ba xam lu ko yoru toppatoo xam nga lu mel ne nguur bu dee ko joxati. te lu mu baax a baax. yaa ngi ci sagar na jël. te lu mu ne mel na malaan la am topp ko ba xam lu ko jee fekk. su fekkee loolu yow neex na la. ah nga def ni moom. bu la neexut nga xam ne war la koo def rek. ah dégg nga. faamat ko ma jublu. li farwatin ci malaan ak céw nga. boo xam ne hiya moom bin nahaari ci bëccëg mm-hmm. riyaas yi mooy sama koddaayal génn mm-hmm. wa fi layli ci guddi mm-hmm. firaas yi mooy sama lal fa nadawtuha ma ñoori ko hanni ci sama jëmm wa qultu ma wax la wa ñaal ko nee ko nangu ko min ni jima fa ma kasaba saxut de an iftaraaha lu muy mu labayo waaye ni te sama ba taraaha mu ngi koy ji ba ma ko koy ci saa la ko labayo maa ngi koy xool de su ma ansala topp mu sadd mu wéyli mm-hmm. lillahi man albasani farwatan mm-hmm. adhat min arriadati li junna mm-hmm. albasani ha waaqiyan muhjati wuqiya sharra al insi wal jinna sa abtasil yawma sanai wa bi gadin sa yuksa sundusal janna loolu la wax mu ne lillahi ki man ñaan na yàlla man ki nga xam ne albasani hoo deena ma farwatan malaan ak céw ga kii mooy waaye ki ma jox malaan goo baax gile mm-hmm. xam ne adhaat mujj na mm-hmm. junnatan dépasse mm-hmm. lii ñaal ma mene riadati ci lox xam ne moo ma fegal tatak sedd bi albasani haa hoddee ma farwa bi waaqiyan mbirum mu daa ji fekk mm-hmm. moo jëtee sama bakkan mm-hmm. yaakaar naa bu duuloon na moom sedd mm-hmm. dana ma yóbbu kon jox gi ma jox yére bii sama bakkan la fekk waaye bu xëyee yàlla na fekkares ko muy tam sarral insi hayu nit ñi wal jinnati ak hayu jinne yi yàlla bu ko kenn nit mënal dara yàlla bu ko kenn jinne benn jinne mënal dara sayeg te si xes dinay hoddoo hmm. ma ci tey hmm. sanaa yi sama tagg ba hmm. fii xaddin te ci ëllëg sa yug saa xes dina koo hoddeef jannati malaa ni sundutee ca àjjana mu ne xam nga lu baax dafa sakkan tey dana am tagg wu rafet boo ëllëgee mu am tiyaabu yu am solo setmu baawa xaala xaaris nee na falamma fatana ba fin ba mu fin naali waa jamaati xoli mbooloo bitti naa ni hii ci fànnum mm-hmm. fil baraati ci fasaha mm-hmm. alqaw sànni nañu xale mm-hmm. yi ci moom minal birayi ci ay malaani cëw nga almuwassa yëre yu ñu muur wal jibaabi ak i mbubb yu ñu njamal maa lu xam ne aada woo diisal na ko fiqaloo diisayam walam yekkat jege yu xilloo di ko mën a kem ni mu mën a waxee nii. Mm. bi ma ko joxee sama malaat bi. Mm. dafa mel ni kubbeekaay la ci moom. Mm. nit ñëpp dañoo nekk di ko sànni ay yére yu gar garante. ba liñ ko jox. xaw koy àttan dégg bëri. al xaw sànni nañ. xale yi ci moom mm-hmm. minal firaayi ci ay malaani céw nga mm-hmm. al muxassa yére yu ñu taaral mm-hmm. wal jibaabi ak i mbubb al muxassa yére jamal maa lu xam ne aada hoo diisal na ko fiqal hoo diisaayam wala mu yàkkat jege ñut yu xillu hoo di ko yëkkati fantalaqa mu dal boyu mu dal di mu tabsiran daa ji bëgg mm. bil faraji ci yër yër mm. kontaan trop mm. mel ni xab-xab bi mu nekkoon ci rafle génn na ca mu tasqiyan daa ji ñaan ñaanal nandal lil karaj ñaal karaj di ñaanal waa karaj xewal watameetoo ma topp ko nag ma topp ci kawam ilaa haysu tamaat ba fa yëkkateku attaqiyatu lu ñuy ter mm-hmm. topp naa ko daal mm-hmm. ba xàgg fi naan jaww ji wuri na su ne ko am loo bëgg a wax itam mm-hmm. da nga ko ñemee wax mm-hmm. ndax sori nañ fañ doon defee tappale mm-hmm. wa tabitoo ma topp ko ilaahi su tamaat ba ko yëkkateku attaqiyatu tuuma mooy li ñuy ragal teer wa badat te feeñ asamaan wa asamaan si naqiyatan daa ji set xam ne fi ne naaj bi dikk na fa wax la ñaar ko ma ne ko la sadda tat na ma qarrasaka xar gi xar sa yaram albardu sedd bi fala tataharra bul rafle waati min maatu gën a tey ma ne ko li la sedd def tey diis na li dara jaru bul defal yaramu ne loolu laa ko wax la sadda tab na ma qarrasaka xar bi xar sa yaram albardu sedd bi fala tataharra bul rafle waati min maatu gën a fa qaala mu ne ma bi ma ko waxee loolu mu ne ma laysa min al hadli bokkul nag ci màndu suransul hadli gaawee yedde nit ku yow day tey nit ku yow day tey teel ne dégg teel ne damm na kooku ku yow bala ngaa wax ndigal ba xam ko teg nit ku yow day tey mm. la <laughs> ko wax de bokkul ci màndu sunaat naat li gaaw a hmm. falaa tasjal bul gaawee te bi min ci yeddaangi woo moom gaawee yedd ma yeddaangi sul mun tooñ bul de topp hmm. maa loo xam ne hmm. lay la gañaalul la bii mun xam mbir daal bu ñu sax xam-xam tollagul war a xam war a xem ak ci mbedd mi lañ dajee rek la jiitu mbedd mi xamu nañ tax ko wax lañ dem tuuti fa wala ni giñ naa ci buur bi nga xam na waral leeral na mu asaybata bi jaaw yàlla mi ne bi jaaw mu weex mm-hmm. wa tayaba te mu teew te mm-hmm. taybata suufat madina mm-hmm. dem madina muy suusu teye tey te moo gën fu ne jasamal jamiho jasamal jamiho bi anna xayral ardima xad haata saatal mustafa wa hawaaha mu ne ñëpp dëppoo nañ ni suuf yi bi ci gën mm-hmm. mooy bi denc jëmm yonent bi mm-hmm. a jasamal jamio mm-hmm. bi anna xayral ardima qad haata saatal Mustafa wa hawaaha wa naham laqad sadaqoo mu ne te man waaw laa de wax nañ dëgg bi saakinihaa alat suuf sa mu nga kowee ci ka ca dëkk kan nafsi xiina sakat sakaa mawaaha mu ne bakkan bu sell jëmm ja moo jëmm ja koy denci ju sell lay doo rek moo tax nit ku sell nit ku sell suuf sam tëdd su sell la mu ngi ci xasida biskari boobu jasamal jamiu bi anna xayral ardima qad hatasat al mustafa wa hawaha wa naam laqad sadaqu bisakiniha halak kan nafsi xiina sakkat sakkar na waaha xasida bu rafet la Alaaji Abdul Aziz Si fonkoon na ko trop wax na ko way seen ñaa ni burde daarul habibi ahaqu an tahwaha wa tahinnu min tarabin ila luqyaha soo ko toppee nga di jàng xasida wa da nga ci jublu jasamal jamio bi anna xayral ardi ma qad haatasaaka almustafa wa hawaaha wa naam laqad sadaqu bi zakiniha alat kan nafsi xiina sakat saka mahwaaha gis nga riwaayaat yi moo wuute waaye dama daarul habibi qulubuna tahwaha riwaayaam bi loolu la ñu daarul habibi ahaqu an tahwaha lu ci ne riwaaya la wa tahinnu min tarabin ila luqyaha nun lay demee rek ba mu àgg loolu la wax de wa tayyaba turbata tayba jasamal jamio bi anna xayral ardi ma qad haata zaatal mustafa wa hawaaha wa naam laqad sadaqu bi saakiniha alat kan nafsi hiina sakat saka mawaaha wa tayyaba te mu teyal turbata taybata suubas madina ne law lam ataarra su ma rafle wu doon la ruxtu kon ma gont bil xaybati ci sooy mm-hmm. wa safaril aybati ak féex ak defu kay yére mm-hmm. yaramu neen bi mm-hmm. moo tax jógee wuma bi loxoy neen ni ko sama wëlis bi leen ni mu feete ak yére du ma ko doon def nit nag def lu njëriñ fekk nga ne ko la ko war a su mën a saa topp mu génn ilal ziraari jëm ci daw bi ma waxee yooyu rek bu sori ma. Mm-hmm. mel ni ku bëgg a daw. Mm-hmm. wa mu musóoroo. bilik mm-hmm. bi raari ci njëkkal xar kanam. mu posé caractère. pour bañ ma wax ak moom. wa qaala mu ne ma. ama taalamu. xanaa xamuloo ne. am na sin sinati sama jikko. al intiqaalu mooy toxaloo min saydin tukkee ci rab ila ila saydin jëm ci beneen rab. wala ne sax ak wàññeeku. min amrin tukkee ci amru ila saydin Mm-hmm. yow xamuloo ne man foo ma fekk mm-hmm. maa ngi ci suma mbiri bopp mm-hmm. lijjanti lii su paree ma lijjanti leneen dem ci kii bu paree ma dem ci man amoo joti toog amata alamu xanaa xamuloo ne. Mm. am na sin sinati sama jikko. Mm. al intiqaalu mooy toxaloo min saydin tukkee ci rab. Mm. ila saydin jëm ci beneen rab. dégg nga wala ne tax ak min amrin tukkee amru. ila saydin jëm ci dégg. waaraate gis naa la nag. xanaa te ni yaa ngi may gàllankoor yaa ngi may bëgg waa xam ni te nga ma. te it yaa ngi may waa fàttali fàttal nga ma. xanaa hmm. maa fula lii daal. Hmm. a fàttali jëriñ nga ma ko. Hmm. malaan mii nga jox ma. soo jëlee ci sama temps loo xam ne mën naa ci am fukki malaan. du ma jëriñ dara am. waa fàttali fàttal nga ma. xanaa maa fula lii daal. a fàttali jëriñ nga ma ko. dégg nga. foofu fu ma ba ma waay. haa faaka yàlla jàmmal la allahu yàlla min lax mi ko ci sa neen. sa waxi caaxaan baal ma waay. wasdut. da nga mëgg xam hmm. ni ci man baaba jiddi ka buntab sa dëgg hmm. wala wékaal safo gis nga man waxuma yow sooy wax dëgg laaju ma la sooy ko man foofu ma bàyyi ma <laughs> man waxuma yow sooy wax dëgg laaju ma la sooy ko man foofu ma <laughs> waxtu te na nga mëdd xam ni ci man hmm. baaba jiddi ka buntab sa dëgg wala wékaal safo ah, naqari trop c'est <laughs> vrai tuuti moo ci man dañuy dem tuuti rek moo ci des yaakaar tuuti rek moo ci des dégg nga. tuuti rek moo ci des dégg nga. loolu de mm. mm. mm. la wax. xaalis ne fa jabastu ma ñoddi ko. jabsatil haabati ñoddi fo. léeg-léeg bu la wëree nit ki mer na. te defoo ko lu jar mer. daanaka ak nit a di ngay gis. wala ak réewa ngi ngay gis. waaye nag boo ko bëgg a gën nag. dafa topp ci na mel mm-hmm. mu ma ñoddi ko mel ni ku koy kafe mm-hmm. wa jaajatu ma xoo bii ci moom li doabati mm-hmm. ngir mbërante xam nga defu ko ko lu jar mel ci dëgg dëgg wa xultuma la woo ñaal ko ma ne ko wallahi giñ naa ci bu ma la suturaalu doon wa waxati te ma muur xalaa xawaari ko ci sa ayit ji lama wasalta doo joti ila si la si jëm ci kenn may fa ma la fekkoon nga taxaw mu wóola la ne gis naa la su ma li ma xam ci dara doo ko fi jëlee law la ubaari ko ma la suturaaloo la waxati mu xaalaa waari ko ci sa ayib la la ma wasalta doo joti ilaa silatin jëm ci genn may walan xalafta doo jàllarbeku ak saa di gën a xoddu même basalatin soble yaa tegale ba mel ni doomam soble tey waaye xam nga ko may waaw dañoo mën a wax de xam mm. nga xollil la ba jeex. Mm. yaa ngi tegale ba mel ni soble. Mm. xam nga li la ko may. li ma xam ci yow su ma ko waxoon. xam nga ne doo fi jëlee dara. fa jaasi nii fayee ma nag. xandi saani ci sama rafetal ilay ka jëm ci yow. te ji ma la defal da nga ma koy fay. wasatri ak sama raal la ka ñaal la. yëkkati naa yore jox la. waxaale ak ci yow xam naa si bañ koo wax. da nga ma koy fay. danga mu koy fayee nag mm-hmm. bi an tasmaa ci bu nga tabiat lii ñi xal ma mm-hmm. bi raddil farwati ci delloo ma sama mala nag cëw nga gi mm-hmm. aw taarifa nii wala nga xamal ma kafaati sadwati kafi sitta kenn ci ñaari ba ñaari yëfu moo ñoo tàggaloo danga ma waxal kafaatu sitta wala nga delloo mu yërim ma la joxoon <laughs> la ko wax loolu la ko wax de loolu la wax de fa nazara mu daal di xool ilay jëm ci man mm-hmm. nazaral mutaajibi mm-hmm. xool ak aji xéemu mm-hmm. seetlu <laughs> waaw man mi la ku may loolu lay xelal <laughs> kii ko fekk maa ma jox ma wal ma xërra mu ñëkkal mu lëndal xam mu lëndamal xar kanam ismi raaral mutaxaddibi ñëkkal ak aji jëfandikoo mer bu ma ko waxee loolu mu xool ma daal xoolinu daal ku yéemu ci man lool daal poose mm. xar kanam mm. waaye xam nga ki la xam dama mm. doo bu la gën a xamee du la topp moo ci gannaaw lu mu ne ma amma raddul farwati delloo malaan gi day moom fa am hadu moo gën a bëri min raddi am si ci delloo démb ak daawiri ci daa jiwéy wal mayte ak néew mm-hmm. alxaabili bu daa liggéey mu mm-hmm. ne jox de mm-hmm. ko moom sooy boo génn ci fata mu ne ko ca joxe yaakaar naa démb del si aat wala kafaato woon mu gën a yomb nga jot ci malaan bi de malaan ma la ko joxoon de waa ma kafaatu sadwati buy kaafu si taana kafaatu si taana fa subhaana man tudd na masalla koo xam ne tabaxam mool na mu hmm. xalaat yi nekk ci sa xel mi hmm. waaw mu waaw xaate mu doon adal hmm. yaa ni ka ndabar sa denc waaye buñ ko asut ah man de ku la gën a naqadi xel te gën la yomba a fàtte gisagu ko ah kii ma dal yàlla gare kaw tiim nag kabar sunu yi ngay laaj man daal ku la gën a naqadi xel te gën a fàtte daal gisagu moom fa subhaana man tudd naa sell ki nga xam ne tabaxam na ala diini ka sa xel bi mm. luñ la waxal waxal doo xam waaw xaa si mu doxaatal mm. wi aa xam ni ka ndabal sa dencukaay mm. waaye lu niru niru nga xam nga balaa ëllëg nga fàtte xataa aussi te ba fàtte loos na la maa li nga xam ne en sattuka saddaloon naa la bi tax kërati ci bistaran ba bañ ci bistaran ba la ma la wéyaloon lim ni sukkarata ñaal kuñ naan im ni sukkarata mooy saayir borom diiwaan bu tal bi borom diwaan bi ne juróom fukki junne way hmm. waaw la lu bëri la way hmm. dafa hmm. eh, fi awa iliha isatalaha labibul qawmi aw darasa mu ne la yoo xam ne sàllaaw seeni kaaw ñu ngi ci seeni njëlbeen ba leen jàngee da nga leen xam ak fi awa iliha isatalaha labibul qawmi aw darasa jaa sitaahu mm-hmm. wahen di min hawa iji mm-hmm. saman idal qatru han mm-hmm. hajatina habasa kinnun wa kiisun wa kanunun wa kaasu tilan baadal kababi wa kussun naimun wa kisa def ci kaaf la tale kafatuha musbatatun fi awailiha ida talaha labibul qawmi aw darasa mu ne jaa yàgg nay dikk asitaahu faslu sitaa waaye indi te nekk na fi man min hawaay ji jaay haajoom mm. samoon juróom-ñaari biir mm-hmm. idal xatru bu tëyee taw nga fi daale habasa mm-hmm. xan haajaati naa wali suñu yaajo xobu mm-hmm. si dikk mu sedd ba kenn mën da génn fekk maa ngi yore juróom-ñaari ba ca njëkk mooy kin nun néeg boo xam ne seennut yoru wa kiisun ak porte monnaie boo fees dell ak xaalis wakkaanoonu hmm. ak furna bu dee boy hmm. wakkaasu telan hmm. ak kaasal sàngara baadal kabaabi ci gannaaw yàpp woon waajibam ñor na wa kusun ak jongama naa mun guraaji xaw wa kisaawul ak mbàjji bu tal faddu si ta yàgg na ñëw fekk ma amee yi tela bu baax a baax mu ne xam naa bii taw teel sa wet yi de man du ma ci jàmbatante falaw mat falaw masalnal bihaara daara lam yara nii aqul ahsan hada al yawma bii awasa xamte naa ko nam ko baat summa qaala topp mu ne ma la jawaabun tontu yes fii bëgg dana musaafara xëyru mm-hmm. eh, moo gën min jilbaabin ci kodday mm-hmm. yu fi wu dana tàgg sa yaram. Mm-hmm. léegi jox la xam-xam bi moo gën ma jox la ma naan dégg ko sax ndax ñàkk. Mm-hmm. waaye nee mm-hmm. mu ne fakk bi doy na woon maa ji xam ne maa itam mokkal nga wan kër bi te nga wàññi. kon léegi comme wax naa la kaw sax dem. xaarit nee na ba faaraaf soo mattaagoog moom. waqa zahabat te dem na. farwati sama malaanu cew nga gi. li sexooti ngir sama texeal yi mm-hmm. wa xasaltu ma xamal mm-hmm. ala raxdati ci lox mm-hmm. toola satlati yaggayi sama coran mu ne mu dem yóbbu suma maran moo tax la ca sedd ba waaw <laughs> ko moom de mu ah. ne moo tax la ca sedd ba waaw ko moom de waaw